mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo suñu borom mi nga xam ne mooy boroom kàttan te mooy boroom man-man te mooy boroom sañ-sañ lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te jaaxal ñépp te xam nañ ne moom képp moo ci man dara yàlla na yàlla nañu dimbali jële ko fi ba jeex tàkk te gën noo sàmm gën noo musal loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko ginnaaw loolu itam ñu tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom. moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom sañ-sañ Cheikh Maodo Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te xam nañ ne lii iteem lépp mooy lislaam ak doomu aadama yi yàlla ko suñ borom gën a dëgëral gën koo kàttanal gën koo ma yokk ak man ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci lislaam yéene koo def ci doomu aadama mu def ko man mën koo defee ni nga ko bëggee te ak na kawe njortam dañ ànd koo moom te daje ci gërëmul suñ borom képp koo xam ne itam lislaam mooy sab tool yàlla na suñu borom gën a dëgëral gën daa kàttanal ba lépp loo xam ne yéen nga ko def ci lislaam nga def ko ci defe ni koy sa jot te ànd ko ñu ko àndal war a àndal te daje cee ngërëmul suñu borom loolu lépp suñu borom mën na ko jàpp na ko ginnaaw loolu nag ñu ngi nekkoon ci ajjuma yi wees yépp di waxtaanee ci lu jëm ci julli ndax dañoo julli dafa doon loo xam ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel te dañoo dëkk ak moom te te am ay doomu aadama képp lañ comme nag ay doomu aadama képp fàtte dañuy yokk dañuy yomb lool def loo xam ne itam wur woon a bokk julli gi mën nañ mën nañoo yomb ndax doomi aadama rek lañ matuñu loolu nag moo tax tey jii li nga xam ne moom lañu bëgg a waxtaane mooy nit ki bu dee sikki sàkk ci lam ndax def naa dara ci julli ndax sujjóot naa wala sujjóotuma wala muy sikki sàkk ndax rukkoo naa wala rukkuwuma wala muy sikki sàkk ndax jàng naa wala jànguma nan la war a def ginnaaw itam bu defee loo ne bokk ci julli gi nan wala loo xam ne bokk na ci julli gi sax waaye nag da ko dafa dafa def lu ëpp ci julli gi loola itam nan la war a def bu fekkee ne dafa am sikki sàkk ci julli gi ndax moom rukkoo na wala rukkuwut wala ndax sujjóot na war wala sujjóotul nan la war a def mooy ni mu war a def mooy na jàpp ne bu dee daa jàpp ne day wax ne man rukkoowuma na jàpp ne rukkoowut kon ni mu war a def mooy rakka boobee bu fekkee ne mu ngi ci rakkaam ñaareel bi ba tàmbali caa jàng na xam ne kon rakk bu njëkk boobee moo xam a njëkkoon a def baaxatul da da ko war a defaat ndax dafa fàtte dara te te defu ko ci waxtu wi nga xam ne ci la ko waroon a def bu dee nag dafay dafa dafay sikk sàkk ndax rakk bii mooy sama rakkam ñaareel wala mooy sama rakkam ñetteel ni mu war a def itam mooy na jàpp ne lii mooy rakkam ñaareelam ndax loolu mooy li gën a wóor te mooy li nga xam ne itam mooy li ko li ko li liñ liñ ko sant mu war koo def mooy waxtu wu nekk su dee sikk sàkk ci def naa dara wala defu ko la gën a tuuti nag na jàpp ne loola moom la moom moom lay jàpp bu ko defee nag daal di soog a jàll ci julli gi mottali ko ni ko war a mokk mottalee mooy bu fekkee ne day sikki sàkk ndax ràkk bii mooy sama ràkkam ñaareel wala mooy sama ràkkam ñetteel na jàpp ne lii mooy ràkkam ñetteelam bu dee day sikki sàkk ndax lii mooy sama ràkkam ñeenteel wala mooy sama ràkkam ñetteel na jàpp ne itam ràkk boobee kon mooy am ñetteelam bu ko defee mu mu mu soog a mottali la nga xam ne moo des ci julli ga loolu nag bu ko defee bu bu bu ko bu noppee day day sujóot xab na salaam mooy ndax mën naa am dafa yokk ci julli gi mën naa am bu fekkee ne nag xam nañ ne bu fekkee ne da nga yokk ci julli da ngaa yokk te mu doon tagay si tagam si ndax yokk naa wala dolli naa ndax dalle dolleeg yokk yëpp mën naa àndandoo am ci bi nga xamee ne yaa ngi si sàkk ndax xam naa ndax julli naa rakk bi muy muy ñetteel wala rakk bi mooy ñeenteel kon li mu war a def mooy day sujjuut xabla salaam te xam nañ ne xabla salaam ki koy def mooy koo xam ne dafa wàññi loo xam ne dafa bokk ci sunna yi te teyu ko kooku dafa war a sujjuut xabla salaam wala ki nga xam ne mi ngi sikk sàkk ndax am def naa ko wala defuma ko ba tey itam day day war a sujjuut xabla salaam wala koo xam ne dafa boole ci biir julleem yokk ak wàññi itam kooku xabla salaam moom la war a def kon ki nga xam ne day sikki sàkk ndax rakk bii mooy sama bi ñetteel wala rey mooy sama rakkab mooy sama rakkab ñetteel mooy sama rakkab ñeenteel na jàpp ne ñetteel ba nekk bu ko defee ni muy def mooy daal di mott di julli ga bu bu su noppee xam xabla salaam balaa balaa balaa balaa wax asalaamaaleykum bu fekkee ne nag dafa dolli ci julli gi loolu itam mën naa am ci doomu aadama loolu nag lii mu yokk yi nga xam ne maanaam wa sikki sàkk googu nga xam ne moom ngay def ndax lii mooy ñetteel wala ñeenteel wala lii mooy ñaareel wala mooy ñetteel loolu yonent sa sallallahu alayhi dafa wax ne képp koo xam ne yaa ngi sikki sàkk ndax xamoo lii mooy sa ñetteel wala sa ñeenteel li nga war a def mooy li ngay sikki sàkk moom bàyyi ko jàpp ne nag defoo ko bu ko defee nga def li nga xam ne mooy li gën a wóor mooy jàppal ne li ngay sikki sàkk mooy li nga war a def bu ko defee nag boo noppee da ngay sujjóot xabla salaam yonent bi sallallahu alayhi wax ne loolu boo ko defee bu fekkee ne loolee nga jàpp ndax lii mooy ñetteel wala ñeenteel te yàlla dogal xëy na mooy ñeenteel ba waaye nag mooy ñett sam xel yow li nga jàppoon ne lii mooy ñetteel bi noonu nee na bu fekkee ne yàlla dogal na mu doonoon ñetteel te te da nga ko doon sikk sàkk ndax mooy ñetteel wala mooy ñeenteel te yàlla dogal mu nekk ñeenteel da xam ne loolee bu ëllëg yi man dinaa la tinu ci kanam suñu borom ba julli nga jaar mu war a jaar bu fekkee ne nag yàlla dogal na da nga doon sikki sàkk te li nga doon sikki sàkk doon li nga xam ne mooy li wóor mooy li am itam kon nee na loolu dafa mel ni seytaane da la doon jéem a jax-jaxal te te nga woon nga ko ko jax-jaxal googee amul benn jeexat ci man ndax def naa li ma war a def kon loolu mooy li nga xam ne mooy boo amee sikki sàkk ci julli bu dee da ngaa dolli nag ci julli gi dolli moom ñaari mbir rek la ma nekk mën na doon loo xam ne danga koo dolli ci julli gi tam bokk tam bokk ci julli gi wala loo xam ne danga koo dolli ci julli gi te bokk ci julli gi li nga xam ne nag da nga koo dolli ci jullit gi ci julli gi tam bokk ci te bokk tam bokk ci julli gi bu fekkee ne teyoo ko dangay li nga war a def mooy boo boo noppee da ngay sujjóot de salaam ndax dangaa dolli loolu nag li ñu ko won mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa a julli julli goo xam ne mais ñeent rakk la war a doon moom mu julli ko juróomi rakka ba mu noppee nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaawam xam nañ ne am nañ kersay wax ko ne ko da ngaa yokk wala da ngaa noom waaye nag ñu ñuurumtu ci suuf bi ñu ñuurumtu nag mu laaj ne lan ngeen lan moo xew ba tax ñu ñuurumtu googee ñu xam ngeen di ko def dina ko waa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo julli julli gi dañ cee yokk léegi lu mu doon war a doon juróomi rakk wala ba tey ñeenti rakkaayam doonoon la ñu ne leen ñeenti rakkaayam doonoon la ñu ne ko moo ne yow de juróomi rakk nga julli bi nga xamee ne nag loolu am na ni mu def mooy dafa daal di sujjóot se maanaam dafa sujjóot baada salaam ndax dafa ci julli gi daal di wax de daal di leen di wax nag daal di jàngalee nag njàngale lu moo xam ne ñun ci doomu aadama yi na ko jëmale ngir xamal ne nun nan doomu aadama yi matuñ te li ñuy def lépp itam léeg-léeg ay gàllankoor man caa dugg wala léeg-léeg doomu aadama googee dugg ca mu ne nu na ngeen xam ne man kat mbindeef laa comme yéen damay fàtte comme ni ngeen di fàttee waaye nag ñu ba ñu ñu bàyyi xel ci de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu lu waxee ne mbindeef laa comme yéen damay fàtte comme ni ngeen di fàtte jubluwut loolu wonewut mukk ak ak ak di ci moom wala dara loo xam ne lu koy gàkkal la ci moom ndax bu fekkoon ne moom moom yi nga xam ne moo moonu war a jàngal bu fekkee ne loolu dalu ko woon ñun ñii nga xam ne ñu di leen bu nu loolu nekkoon dan la ñuy def kon ñu xam ne loolu da ko doon def ngir jàngale rek waaye tekkiwut ne dafa am lenn loo xam ne da koy da koy da da koy tekki ak ne moom ñun a yam képp déedéet waaye dañu doon jàngal rek ndax moom bu loolu awru woon ci moom ñun ñi nga xam ñoo war a topp ci ginnaawam tam dallu nan la ñuy def kon loolu moo tax ba ba mu amee nag mu joxe jàngale bi wax ne kenn ci na ngeen xam ne man mbindeef laa comme yéen damay fàtte comme ni ngeen di fàttee waaye nag bu fekkee ne kenn ci yéen dafa fàcce fàtte li mu war a def mooy na sujjóot na na na maanaam dafa yokk te yokk googee fàtteeg doomu aadama moo ko yóbbee ndax na li mu war a def mooy na sujjóot baada salaam ginnaaw bu mu sëlmalee ba noppi loolu nag doo waxaat beneen beneen ne bu fekkee ne da ngeen a dafa waa ji daa dolli ci julli gi wala mu wàññi ci lépp sujjóot lay doon bu dee da ngaa wàññi maanaam bu dee dangaa dolli loo xam ne da ngaa dolli su baada salaam ngay julli ngay def bu dee da ngaa wàññi nga def xabla salaam waaye nag mën ngaa def loo xam ne yokk googe maanaam masalan yow yaa ngi waroon a julli ci ni nu ko misaale nii kii da nga war a julli ñeenti rakk mu julli mu jum def juróom juróomi rakk wala dafa war a def ñaari rakk juum def ñetti rakk léegi nan lay war a def mooy ndey sujjóot ba xab la salaam ginnaaw bi nga xamee ne mën na maanaam na sujjóot ba xab na salaam ginnaaw ba mu ba mu sëlmalee ndax mën naa am yokk goo loolee mu doon xalaat ndax lii mooy lii mën naa am mu doon ko kon day mel ni dafa yokk te yokk xam nañ ne moom baada salaam lañ koy defal waaye boo boolee yokk nag ak wàññi da ngay moom xabla salaam ngay ngay def moo tax nag bu dee da ngaa li nga dolli nag doonut lu bokk ci julli gi maanaam mu mel ni koo xam ne mu ngi julli waaye ma ngay foq ay baaraamam wala mu doon koo xam ne mi ngay wokkutu wala muy xool ab montaram ak wala yu demee noonu xam nañ ne yooyu bokkut ci julli gi ndax dañoo bëgg nga teewal booy julli nga teewlu bu fekkee ne loolu def nga ko te mu doon loo xam ne la nga ca dolli ci julli ga maanaam dox ba bëriwut wokkutu ba itam bëriwut masalan xool ba montar ba itam bëriwut lool kon dañuy xam dañuy jàpp ne loolu kon lu néew la du yàq sa julli waaye bu fekkee ne dafa doon lu bari maanaam dox doxantu dox bi nga dox ci biir julli gi dafa bari wala wokkut bi bi nga jokk ci biir julli gi dafa bari wala xool gi ngay xool dafa bari wala wëndeel gi ngay wëndeel sa jaara bi nga takk dafa bari ci julli gi loola li muy def mooy day yàq julli ga da ngaa war a julliwaat li ñu woon nag ne bu fekkee ne li nga ca li nga ci dolli te bokk ci julli gi doon na loo xam ne lu néew la du yàq julli ga mooy dafa abu xataada da dañoo nottil nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana julli buy julli itam léeg-léeg daana am koo xam ne mooy umaamat bint abilaas da ko daa boot da ko daa tungóom bu ko tungóomee xam nañ ne tungóom ab xale bokkut ci biir julli bokkut bokkut du bokkut ci julli gi kon tungóom googee nga xam ne moom la doon def xale ba daa daa def bu ko buy buy sujjóot da koy wàcce buy jugaat yëkkati ko tegaat ko ci kawam kon loolu ñu xam ne te loola ñu xam ne kon boo dollee ci jul boo yokkee ci julli gi loo xam ne bokk ci julli ga te bëriwut doonul lu yàq julli waaye bu baree day yàq julli gi ama ñu ñu waxaat ne itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas nay julli sayyidatuna ñëw di fëgg bunt bi mu ubbi ko te xam nañ ubbi bunt yi tam bokkut ci biirug julli kon waaye nag xam nañ lu néew la loolu moo tax ba doonul lu yàq julli ga kon lépp loo xam ne yaa ngi koy dolli ci julli gi te mu doon loo xam ne bokk ci julli gi te bëriwul loola du yàq julli ga waaye bu bëree day yàq julli ga lépp loo xam ne itam yaa ngi koy yaa yaa ngi koy def ndax dañoo bëgg booy julli nga teewlu suñ borom xam ne yaa ngi ci kanam suñ borom di diyaale ak moom suñ nag képp koo xam ne yaa nekk ci kanam di diyaale ak war ngaa xam nan ki nga ki jàkkaar lool kan la war nga ko bàyyi xel ba lépp loo xam ne mooy tekki ne doo bokk ci li mu lay def loo rek nga fës yéene koo sori fas yéene koo daw kon suñ borom mi nga xam ne mooy borom dimbal te mooy borom jàppale yàlla nañu dimbale ba lépp loo xam ne mi ngi sant nañ ko ñu defe ko ni mu ko bëggee te buñ ko defee ni ko bëggee itam daje ci lu kawe mu faydu ci lu kawe suñ jot loolu suñ borom mën na ko jàppandu ko yàlla nañu gën a tax sàmm gën noo taxaw ba lépp loo xam ne sant nañu ko ñu man ñu di ko defee nam ko bëggee te bañ cee daje te mën cee daje ngërëmul suñ borom nga xam ne ni lañu ko ni la ni lañu ko diggee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 ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين